wallaay وتنهتي وما لي أرغب عن خلائك معبود والأرباب مر الخليل هبلي غير السلاح عريمة أدعوهم الشيوخ لو يكون نعمتي أسألك الطحوى لا أخذي

ونعم تحزنون

شاء من غير مشيئتي

Gracias. Thank you. اغفر الله Serigne Touba ndax moo taxoon ak Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz ni ni inna madha nabii xayru ilaaji aalijuhu bii fa fi ay su ma feebaree ba ma pikiir buñ ma jox ay comprimé ak aajo ak ma mën a am nañ tàgg Serigne Touba noonu la ko la ko dundee noonu rek lañ dundee moo tax ñu am lu ñu am ku ci bëgg a woy yónnee ku ci bëgg a am cër sax da ngay jël yónnee ci biir teg ñoom ñëpp ñëpp ndax ndax yonent bi dañu ni kuy giñ na nga giñ ci yàlla wala wala waaw maam Cheikh Ahmadou Bamba dinaa ci tàgg yonent bi Seydou Hadj Malick dinaa ci tàgg yonent bi seex na seex saako dinaa ci tànn jënd ci. ñu ne loo wax ni billahi yaati wa laysa yaati misla ibnu abdillahi bi ayaati kon Serigne Touba moo jël mu ni bu jox wallaahi ni wallaahi maa fi ardi wa samaay ku faa ngi ahmada min al asiyaay bu sëñ Cheikh na Cheikh Saad bu jël wallaahi Seydi Hadji Ali nañ ma jox tallaahi jël kalimaam ni tallaahi ma kiftu taalidan ala qasami zarwa wa dammat asdaaqu min tuwabi li ñu wut li ñu bëgg lépp jar nañ ko ci yoon moo tax it amuñu ko kon lii xale yi def rëy na am na solo yàlla yàlla fay leen defe naa ni lii rek suñ ci dëkkee suñu borom war a faj aaju yëpp ndax dañu wax ne loo bëgg rek jaar ko ci Sayyidina Muhammad dama jékki-jékki rek xale yu woo ma wax man ñun daal di daan bëgg a bëgg man yàlla yàlla ci yàlla yàlla waaye nag nag dinaa ci waxtaan ak Pape Tidiane Sy Pape Tidiane Sy bu bàyyi alxaaji Sy bu jekk saaw nga xamante ni si moom Cheikh Al Hadj Abdou Aziz moo ko yóbbu woon bitim réew mu jàng bi mu ñëwee ngir muy daara ba fi mu nekk nii ma nga am foo xamante ni si fa lay liggéeyee ndax di jàng waaye lii mooy métier fa tabaarakallah ñu wax leen ko mu jàppal leen bés bii kon nag artiste bi daal daal ñaan yàgg ci yàlla def barke waaye ñu nuyu bu baax koo xamante ni sii mooy mbay booy waaye bala ñuy dem ci mbay sax dañuy dem ci suñu diggaag yu baax ji nga xamante ni damay wax xale yi ni leen leen su ngeen amee seen way ñuy dafa saa yoo demee ci jàkk ji fekk ko am nga roy soo amee sa muy muy def la gën a baax amal fu la ba roy kon roy leen seen way ñuy waxtu yëpp yëpp jàkk jàkk yu julli yal na yàlla ko yàlla fan Pama Ndack mi ma nag nekk ci kër kër te loolu dafa yàq tey démb la woon ndax man bi may ñëw fii mag Pama Ndack Ndack daal di daw ñëw fii kon bu yàlla defee mu ñëw Dakar dugg fii dama ci kontaan dama ci mbir xam naa ni sax bàjjee na ñëw ndax waaye yëpp yëpp xam naa ni ñëw ñu ngi di ziar fi leen nuyu waaw defe naa ko ne danañ def dara fii te Pape Makhtar bu njëkk waaye yëpp ñëw xam naa ne bàjjee la ñëw li yónnee xam naa ne turandoo bi dafa xaw a xaw a xat rek moo tax ñëw waaye daal dina ko yóbbu lu nekk ci buntu bi waaye bala ñu ci jublu dañuy nuyu sunu rakk ju baax ji Moulay Baye nga xam na moom maam Cheikh Al Hadj Abdou Aziz moo ko yor ci loxoom. boole boole jabootam yëpp yóbbu Fass mu jàng ba jeexal mu jël ko yóbbu ko bilaa baax kooku nag fa tabarakallahu mooy bàyyu man moom la ñu bëgg balaa parti ja dugg ci burju bi ñu jox ko mu ubbil ñu benn aaya alquran ginnaaw tàgg nañ yonent nañ dugg ci alquran delluwaat ci yonent aajo yëpp waajal ak gam ndax nii la ko maam Seydi Hadji Malick daan defee woote pour pour ñu jàng ko mu jàllale ay messasam ak sunu maam ju baax maam Rawaan Ngom gàmma ñoom ñoom ko daan def kii di jël xaaju suuf bi kii jël xaaju kaw ñu daje ba ko jàngee ba jeex muy kaamil ñuy nuyu tamit tamit tabaarakallaahu màggat màggat bi yoo ko ko waxee fa tabaarakallaa dafa loolu kontaan naa ci lool lool kon bi yëpp boo tuddee màggal rek mu yóbbaale ñëpp géew waaye ki nuyu bu baax ki nga xam ne loolu dëkk bi moom moom muy muy cee waaye nag damay jàpp ci papa rek xaal Demba Diallo suñu yaay ju baax xoole nu rek njaboot Seydil Hadji Malick uuf ñu ci kër gi. lii dañ ko ko wax ko bàyyi lépp ñëw ñëw. moom it incha allah dinañ ko dinañ jox ñu wax wax lu ñu mën a. xam naa ne nag présentation si ñoom ñi organiser nit ñi ñoom la ñuy bàyyi def def def. bu ñu jeexalee nii rek jàng jàngut bi dañu leen woo ñoom délégué kenn parce que ku organisé lii am na ku ci jàpp nee nañu lii bi ñu ko jëlee. ñëpp ñëpp bëggoon nañ ci seen alal ba ñi ba ñu tudd sax bëggoon nañ seen alal ci lii ba pare di ci daw di ci daw daw yu métti waaye nag loolu dafa yàgg yàgg. déglu alquran ndax sunu borom moo wax ni bu ñuy jàng alquran nga ngeen déglu kon kenn rek la ñuy may ñu jëm mooy kii bi posofet di ci ratal mu laa gis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 اهدنا الصراط يكلف الله نفسا إلا وسعها لها

نعمة لدينا ففاخذ كنا

صلى الله waaw mbokk yi dañuy waaj a jàng lu am solo moom la ñuy wax mu dara boo taggee yonent bi ba sa yaram tàng loo ci biir mu faj ma bëgg aajo yëpp faj ma bëgg kenn ku nekk nga jaaya teg Seydina Muhammad nga ñëw ñëw bu ñu ko jox de def ko hadiya Seydina Muhammad ñu teral teral aajo boo ci diir bu déwénee di nga yëg ni aajo bopp faju faju lii nii bëgg a jàng jàng mooy ñaan gi mooy salaat bi moom la ñuy wax mu dara lu rëy rëy examen jëkk rek rek tukkee yonent bi moo ma ne fu ne loo bëgg rek rek loo bëgg rek jaayanteel ak Seydina Muhammad ربنا أولى Sell التواب وزمانه وكسوته Thank you.